salaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa moolana muhammad alayhi salaatu wasalaam wa ala alihi wa sahbi wasallama taslima mbokk yi ñu dellusiwaat ak yéen comme ni ñu ko baaxoo di defee ak yéen saa su nekk jamono bu ne euh, di ko ànd yéen ak euh, Thiès Info ci seen euh, actualité yi xew ci réew mi macha allah xew ci jamono tabaarakallaahu comme ni ko baaxoo di ànd ak saa su ne noonu la fas yéene itam kon ne di ko ànd ak yéen rek mu mel ni <clears throat> mbokk yi jamono ji ñu toll ku ne xam na ni euh, Sénégal yëngatu na ci yu bare bare bare bare bare bare waaye nag am yoo xamante ni mën nañu wax ni ñooy actualité réew mi fii réew mi toll mu doon actualité yu doy waar yu yéeme yoo xam ni euh, su dëgg dee dëgg rek jàpp ñu ni woon waa mais am na ñoo xam ni bettu leen nag jàpp ñu ni woon Sénégal dina dem ba egsi fii ah, muy euh, kooku nga dégg ak coowam lu rëy loolu ndax lim ci bëggoon am na ko ci waaw lim ci bëggoon am na ko ci xam naa ne tey nañ waxtaane ci ñett waaw bi ñu njëkk mooy euh, kaa Kounkandé comme ni ngeen ko déggee kaa moom yaakaar naa sénégalais yëpp xam nañ ko dinañ ci am tuuti luñ ci wax waaye bu ñu fa jógee itam dinañu am tuuti lu ñu wax ci keneen ku bees ki nga xam ne moom it mi ngi génn tudd Cheikh bàyyi moom it dinañ am tuuti lu ñu wax ci moom ci ay kàddoom yu ñu jot a for ci moom beneen bi tam bëgg nañoo waxtaan ci lu doy waar waaye dañ koy tënk xam nañ ni sax temps bi duñu ko may mooy xale bu jigéen boobu nga xam ni dafa jël awra borom këram dagg teg na le loolu euh, yéen ko gisandoo ñoo ko gisandoo noonu ci affiche bi euh, kon war na ne ni rek ni Sénégal moom léegi moom yàqu na complètement li ñu daan wax ay at ginnaaw naan est-ce que dinañ fa egg mag ñi wax nañu borom xam-xam yi wax nañu li muy tekki mooy euh, ku beeboo nga fagaru sa kër gi nga moom nga teel préparer sa njaboot defaraat sa njaboot mais société sénégalaise bi yàqu na yàqu na complètement loolu nag jaruñu ñu koy raay raay la raay raay too ñu ko yàq itam incha allahu taala dinañ ci wax ñi ko ñi ko yàq man waxuma ni ñoom ñoo ko yàq mais yonent bi moo waxoon ni jamono dina ñëw ñi koy yàq ñii lay doon <clears throat> mbokk yi lii nag dafa doon phénomène bu doy waar phénomène u kunkande ndax su ngeen ko dégloo ci ay waxam li muy mane wane mooy ku am baatin la sa sax da ngay dégg ñu ko koy wax foot bi nag du ma wax dara kumkande am na fu ma koy waxee dara mais foot bi man presse bi laay waxal presse bi télévision yi ak yenn sit yi ñi yàq Sénégal ñoom ci lañ bokk. Mhm. ñi yàq Sénégal ñoom ci lañ bokk yenn journalistes yi yenn animateurs yi yennati yennati ci ñiy yàq format plateau télévision yi ak site yi man dama jàpp ni kenn du tudd kenn du leen tudd génne ci presse bi boo déggee mooy ñeleen leen yi woo di leen invité man dama jàpp ni ñoom ñoom ñi ngi ci biir kàmb gi parce que fekk koo xamante ni te li gën a doy waar xool leen palaato yi man dama gis ci plateau yi ñoo xam ne dama leen a xam mais man leer na ma ni question yi ñuy posé ñu ñu koy posé ñoom seen bopp gëmuñu leen ñoom gëmuñu leen parce que Sénégal jaayil yeewootu fi réew mi jaayil yeewootu fi mais dóorkatu dóorkatu marto yi sur tous les plans dañuy fréquenté xoolal jamono yi passé poli ci politique bi la woon politique lañ xamee woon dóor marto léegi quitté nañu rapidement côté politique bi donte la du fa jukki waaye dugg nañu ci diine di nag yàgg yàgg ci këree ci seeni bagage ku nekk ak sa fem bi ngay génnee mu doon lu xaraam naka la Sénégal di am yiw réew mi ñu nekk naka la fi la fi barke di wàcce mag ñi def nañu seen devoir bu kenn taqal mag ñi mag ñi def nañu seen devoir ba pare bu kenn taqal mag ñi mais ñun ñu fi nekk ñoo yàq réew mi ñun commencé ko ci man ak samay moroom ak ña ma kaw bu réew mi yàqoo rek ñun ñoo yàq réew mi niñ ko yàqee mooy xaalis moo waral lii yëpp ah bàcc loo ci mën a dégg xaalis télévision plateau du ñu fa invité nit par hasard à la forme ak bëgg nit ñi am ba déedéet. yow mi ñuy invité yaay joxe sa xaalis yaay joxe say feem yaay teg say dil ak caméraman yi di ko teg ak techniciens yi ñu man li may wax dama koo xam di ko teg ak techniciens yi di ko teg ak mboolem koo xam ni yow ñëw nga pour def ci plateau ñu calculer la ko régler la ko organiser la ko may la bës nga dem yóbbu ca commercial ba xaalis ba nga fa yóbbu l'essentiel ñoom li leen intéressé mooy na xaalis bu dugg rek waa xaalis bi dugg xaalis bi dugg nga invité nit muy def ay tricage di def loo xam ne du xam-xam du baatin du luy jommal nit ñi waaw bërëb ibnu mubarak dafa wax ni azamul karamati luzumul istiqaama looluy karaama li gën a màgg ci karaama yi bi ci gën a rëy mooy nga sax ci njub mais looloy karaama jub xocc foo romb ci koñ bi ñëpp ni ku juba ngi jamono ji ñu toll jeunesse su Sénégal bu ndee fukk genn wàll gi yëpp ñu ngi leen dugal ci ñaar benn bi homosexualité beneen bi mooy franc-maçonnerie te bañu ñu jël xaalis boobu jaay seen bopp jaay seen ngor bañu ñu ko ñoom l'essentiel nañu am oto nañu am xaalis nañuy dawal ci oto yu rafet yi mais nañu jaay seen ngor jaay ngor gi nag porte buñ ko mën a ubbee dañ ko fay ubbee porte buñ ko mën a ubbee xam ngeen ni xam ngeen ni kun kànde façon meewam yii parce que man li ma li may dégg mu wax yëpp man ay fen laa ko jàppee ah fen laa ko jàppee jàppewuma ko lenn lu dul ay fen xam nga fit weesootul shirk weesootul alquran li mu wax alquran li mu wax diggante moom ak baay ak baay cheikh li alquran wax bu dee jàng nañ alquran inna allaha la yaxfiru an yushrika bii jàng nañ ko ndéem jàng nañ ko laa wax yàlla nee du jéggal ku koy bokkaale yàlla du ko jéggal du ko jéggale inna allaha la yaxfiru an yushrika bii wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha bàkkaar yëpp yàlla nee na mën na ko jéggale ba mu des bàkkaaru bokkaale bokkaale weesootul nga am fitu naan la yonent yàlla Moussa defoon dinaa ko def kunkànde yaa am fit yaa dëgër fit yaa ñeme yàlla yaa ñeme sa borom fit weesootul yow ku la gis physiquement ak sa xeesal bi ak détails yi ne ci yow ak li ngay incarné ngay tiim naan la yonent yàlla Moussa defoon dinaa ko def di def seexar di def xërëm geste bi ngay def ak li ngay incarné moom la njabarkat yoo doon def yonent yàlla musaa wan leen baatin wan leen baatin ki benn yat te Moussa du moom moo leen wan baatin yàlla moo ni ko téel yat bi lu ma la ci sant ci yat bi def ko yàlla rek moo ni ko téel yat bi yat bi lu ma la ci sant na ko def yow nga am fitu ni la yonent yàlla musaa defoon dinaa ko def la muy tekki mooy foofu fen nga fa muy benn fen boo xam ni siiw na teleer na deuxième fen bi mooy yi nga xam ni yaa ngi koy incarné ci côté maqaama ak nubuwa ak karaama ak murjizaat ñeent yi yëpp xamuloo ci benn lan mooy nubuwa xamuloo ko nan lay dikkee ci nit xamuwoo ko lan mooy murjizaat xamuloo ko lan mooy karaama xamuloo ko yow bi nga incarné di ko def te mooy loxus tënku ci wàllu saar ak ak arrafuun yi nga xam ne arrafuun yi gisaanekat yi yi nga xam ne xam-xam la yoo xam ni yàlla ne na dafa xaraam boromam dee moo ko tee dem sawara boromam dee moo ko tee dem safara dee beneen bi loo xam ni amoo maqaama bi amoo daraja ji amoo wilaaya nga osé yow osé sénégalais yépp di la déglu sa programme sa communication fi nga ko jaare mooy gars yi amul problème incha allah yow mu asura dinaa xar géej gi waxu xale bébé yooyu nga xam ni liir yi sax waxtaanetuñ ko journaliste yi di la invité di def ak yow plateau ngay gëmloo nit ñi nii bisu tamxarit kenn teewu la nag amul kenn ku lay ñaan njekk kenn neewu la bul ko def nit ñaa ngi lay xaar bàyyil xel ni rendez bi nit ñi ñi ngi lay xaar ci fen wi nar a am li ma ci metti rek mooy summi yaasuura li anna allaha tabaraka wa taala akrama jamaatan min al anbiya yi ci bisu asura nga xam ni ci la yanqub daje woon ak yonent yàlla yusuf bisu asura makasa yunus fii batni xuuti arbaina yawman yonent yàlla yunus bi ko jën bi wane wan ne def na 40 jours ci biir biiru jën bi bisu asura boobu macha allah ci la loolu am jàmm am yonent yàlla aadama bisu asura lañ ko binde bisu asura li ci yàlla def ci ay kéemaan kenn xamul nu mu toll yow nga jox ci nit ñi daje boo xam ni bisu fen lay doon mbokk yi Sénégal gii fan la jëm lakum diinukum waliya diini lakum diinukum waliya diini xul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun duma ko def ba du nuy tukki wala antum aabiduuna maa a'budu te yéen wala ana abidun ma abattum te man wala antum abiduna ma abattum lëkkum diinukum waliya diini waliya antum abiduna ma abudu ñaar yooyu bii la abudu ma taabuduun xul yaayul kaafiruuna la abudu ma taabuduun yéen yéeféer yi yonent bi ne leen àdduna du yàgg mukk ba ma fekki leen ci li ngeen nekk ma koy jaamu te yéen li may jaamu àdduna du gudd tànk mukk ba ngeen jaamu ko te yéen du ngeen ma mës a fekk si man duma leen mës a fekk si yonent bi ni leen lëkkum diinukum ay lëkkum shirkukum waliye ixlaas yi waliye diin yi shirk boobu mooy saaru yi ngeen daan def bokkaale yi ngeen daan def ñaaw ñaawteef yi ngeen daan def yu salte yi nga xam ne da daan am Kounkandé jox rendez-vous sénégalais yi ñëpp àndandoo gëmandoo ko ku ko gëm nag rek boo xefee génn diine yonent bee ko wax nee na kaddu Kounkandé bii rendez-vous bii mu joxe sénégalais yëpp toog di ko xaar exemple ñi ko gëm a tax may wax nag yonent bi nee na képp ku ko gëm doom googu génn nga ci diine man saddaqa arrafan faxat kafara arraf la ci ci la bokk parce que loolu lay incarné waaye comme nee na moom day xar géej gi mu doon loo xam ne ay meew la attention dañuy jaawale cëru yàlla yàlla bépp nit bu mu may cër boo génnee ni wane wax ni yàlla may na ma cër ba yàlla dégradé na la mbaa xam nga loolu bàcc képp ku yàlla jox ngay cër de ngay waliyu bis boo feeñalee ni waliyu nga te yàlla defoon loolu ci yow doo dund 24 heures da ngay dee 24 heures doo ko dund gis nañ ko ci nit yàlla yu baree bari bi leen xaal bi jàppee seen yaram tàng dañoo wax mais gudduñu fan am na wëli yoo xam ne il préfère ñoom di sol ay sagar di jaxasoog nit ñi am na wëli yoo xam ne ba nañu seeni fan yi tukki ay dëkk yu sori ngir ñooñu bañ leen a xam ngir ñu rawale seen pas-pas yaa ngi dégg mais lii am ngeen koy gis ni luxus yi fétiche la te sénégalais lu ko gis lu ko jommal dafa dafa dafa gaaw góor gi ma daan fréquenté mu may jàngal lasaraar góor gi Mbay Njaay ismullahil ahzam dem leen puut ngeen laajte ko ñëpp a ko xam nangul cëram ndax borom nit yàlla la woon bu am bu xam secret tur yàlla est-ce may dégg ismullahil azam lañ ko doon woowee ndax xam luy luy asraar xam luy mbóot da ko doon jàngale te man xam naa ay ponkal yu bari yu mu jàngal asraar kon façon façon wax yu ñaaw yi yi nga xam ne képp yonent bi nee na man laqiyallaahu yushrik bi shay'an daxala naar ku dajeeg yàlla fekk ngay bokkaale ak moom lu toll ni tarfatal ay ni sawara nga jëm waaye nag rendez-vous ba ëllëg la de déggal li Kounkandé wax dinaa xar géej gi mu doon bësam am na ko léegi fan yi boo dégloo ay waxam nangu na ne day faj ay góor ku tële impuissant nee na sax léegi day yokk bagage waaw léegi nee na day yokk bagage xam nga lu tax fii la jëm si woon nag mais jarul woon lii yow gëmal sa bopp rek làqatul fi nga làqat di fajaate mais comme bëgg na faj te sénégalais yi boo defee appel ci yu mel nii après ñu topp la looloo ko ci intéressé def na ko ba pare réussir na ko nag waaye li ko ci nar fekk ëllëg amaamal laay bu ñu demee ba ba ba bisam jot ci bis yi ñu takk ko tënk ko ci lay comprendre nag ci lay door a comprendre ni yonent yàlla Moussa du moroomam beneen bi nag mooy Baye Cheikh xam nga am na loo xam ni bàcc dafa ñaaw torop torop torop te salte te doy waar te jullit du ko def kii nee na moom day xar géej gi kii ni ko amul problème man boo xaree géej gi dama koy naan waa mbokk yi fan la Sénégal jëm léegi fan la Sénégal jëm kun kànd nee na danaan tay géej gi mu xar teguñu ci semaine ba balaataa deuxième semaine ba bàyyi Cheikh moom jóge fële ni moom amul problème bu kun kànde xaree moom day naan yemul ci naan bi nee na képp ku sa maamam dee ku sa maam deewoon moom dinaa la dekkalal sa maam ba pare nag mbokk yi waat ci barke Seydina Muhammad ay senegal ñoo yëpp Seydina Muhammad réew mii boo laajee réewu Afrique yi dëkk bi gën a yëpp yonent bi ñëwal Sénégal gii ñoo ëpp fit lu ñu wax tudd Seydina Muhammad nga xam ni bu loon ak moom yàlla du amal dara ñun ñëpp koo yaakaar lu mu rëy rëy lu mu ngand ngand dara bi boo ko mën a tappal bee boo nga tappal ko sax ni yàlla la bu dul yonent bi ëllëg du dugg aljana ak ku mën a doon nag ak sëriñ bu mu mën a doon ak dayo bu mu mën a am ak tolluwaay bu mu mën a am bu dul yonent bi ëllëg du dugg aljana ndax Seydina Mouhamed mooy sovetage bi alaaji Malik li mu am lépp ba ngay tiim ba ngay yéem tiwaawan di kontaan yonent bee ko ko jox Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul li mu am ba ngay daanu ndax murit nga Seydina Mouhamed ko jox Cheikh na Cheikh Saad bu kadalika ñooñu seen yaakaar boobu di Seydina Mouhamed ñun ñu jël ko jël ko rek caricature bi taxoon ñuy sànni Charlie Hebdo bi taxoon ñuy sànni xeer euh, Emmanuel Macron mais ñii nii Kounkandé bi mais doomu Sénégalais la doomu Sénégal la Baye Cheikh bi doomu Sénégal la ñu mel ni ñoom doomu Seyda Zaman déggoon nga ko fi anamu tey mais kon ñun caricature yi ñuy wax di attaquer nit ñi lii nag président de la république Macky Sall man tey bu ma nekkoon conseil dama naan bisu tam bu jotee police na def liggéeyam police non na def liggéeyam bàcc mhm. bu bis bu jotee Kounkandé li mu def xarul géej gi na continuer direct cent mais na continuer direct cent bu dee xarul géej gi bisu tam xarit kenn ñaanu ko intervention benn sëriñ wax ko ñëpp a ngi koy xaar ci xaram géej googu muy wax mhm. te mu leer ma ni bis ba bu jotee pot ñetti pot ndox sax mënu koo naan mais mii réew ba kay fan la jëm mu Ibnu rek nag wax na ni ñett yàq réew. akay baat ñette yàq réew wa hël aftadu diin ilal muluk nee na borom pouvoir yi njiit yi njiit yi doole ju ñu am war a man a régler problème te régler wuñu ko bokk na ci lu yàq réew réew day am foo xam ne bu fa tolloo comme lii kon Kande wax bàyyi cheikh bii nii day naan moom tam day day dekkal dinaa la yóbbu ci armée nga dekkal nit néew amul dugg na fii amul benn dimension nag dekkal nga wax naan la yóbbu nga dekkali néew boobu ngay wax kii ni dina xar géej gi bu ko deful état na ñëw jàpp ko su ko defee am na yoo xam ni dootuñu ko waxati ci plateau yi dootuñu may nit ñi di am fitu di ko def ndax lii man leer na ma ni ci ay fenn dong lay mujj te fii laa leen ko waxee te dinaa dellu siwaat fii toog leen ne la ma leen waxoon lendemain tam xarit bi ci boppam incha allah bu ma yàlla mayee fekk wér tal boo maytu dinaa defaat nii ma def nii dinaa ci defaat vidéo wax la li ma leen waxoo la ngi dara du ci am xam nga kon wóolu afsadu diin ilal muluk géeju sumbay jun ñu ñu ngi xaar bu sumbay jun bi moom la wax ñu ngi xaar wóolu afsadu diin ilal muluk kon état na ci taxaw ci façon yu mel nii ñu ko fiy def ñëpp état na taxaw seen kanam régler leen ba ñu réglé wu beneen bi mooy lan war ruux baan mooy xërëmkat yi bu àdduna bi yàqoo rek ñoom ñii la façon yi ñoom ñii la ñaankat yi ñaankat yi te déggoog seen borom te allahuma bu ñu wax yàlla nangu ko doo leen gis ci télé bàcc maa la wax ne la ñaankat yi boroom allahuma yi nga xam ne lu ñu wax yàlla mu nangu doo leen gis ci télévision xam nga ku ca ku mu wa axbaaru suu i mooy presse bi yonent bi loolu la wax de nitu état xërëmkat ak presse ñi géré média yonent bi nee na su àdduna yàqoo ñoo ko yàq xam nga lu tax ñooy wax lu tukkal àdduna ñooy dimbali nit mu wax lu tukkal àdduna bii nag dimbali nit la may ko opportunité muy wax loo xam ne teguwul fenn ñu ngandal ko xoolal site yi rek demal site boo dem demal nga nga demal nga xool xoolal télévision yi léegi ñoom ñëpp seen plateau yi loolu la dara du ci dëgg li li ñuy wax ni dara dara dara du ci dëgg laa wax dekkal ku dee ay bu ma nekkoon président de la république jamono bii nii nii bàcc bu doon man maay Macky Sall man buy tam xarit di jot ma ni gars yi dam leen jëli Kounkandé jëli leen Cheikh Baye ñu kii na dugg ci armeel yi kii na dem ci géej gi may leen deux heures de temps nag li ñu wax bu ñu ko deful jàppal rek yóbbu direct police mais loolu mooy yoon li ñu wax bu ñu ko deful ay détails la xol c'est des détails luxus luxus la tudd luxus xaalis luxus xaalis la tudd dafa xaraam am na ñu ko mën bu ñu toogee léegi def ko sa kanam nga gis ko kon loolu. dëgg-dëgg nag war nañ cee bàyyi xel ñetti nag yonent bi nee na benn bàkkaar gënu leen a rëy Seydina Muhammad nee na ak bërul karba iri bi ci njëkk bàkkaar yi gën a rëy ci bàkkaar yi yonent bi nee na mooy ishraaku billah bokkaale yàlla bi ci topp mooy xuquuqul waalidayni way mooy sa ndigalu way jur ñetteel bi mooy saxaadatu zuur yi wër di fen rek ak di seede di seede fen kii wër di fen ak ki seede ay fen nangul nangu kay fen ay fenalam yeneen bi nee na bàkkaar bu gën a rëy loolu gisu ko mais pourquoi ñuy médiatiser fen nga xam ni day yëngal arrache ñun ñëpp jàng ci alxuraan waylun yawma idin lil mukadibiina léegi Sénégal nan la fi yiw di wàcce xërëm yu dul jeex yi xam-xam nangu nañ ko xam-xam nangu nañ ko xam-xam weesootul yenent yàlla Moussa yenent la bi muy wax mais ana xudar ku def dañoo coow ñii naan weneen yonent la am du yonent ñi naan malaaka la wala du malaaka ñi naan wëliyu la wala du wëliyu amul benn borom xam-xam benn téere bu lay bindal teg loxoom ni xudar lii la tatone rek moo fi am ñii ni yonent la ñii ni wëliyu la ñii ni malaaka la moo tax bi ko laaj maam alaaji Malick moom ni ko problème mu xudar dañoo bëgg nga leeral ñu ko mu ni qul innahu saalihun tusdaq wa tuxtaram neel ku baax la woon rek ku baax nag waliyu da koy doon ku baax yonent da koy doon ku baax malaaka da koy doon moo mën a leeral histoire moom tam yàlla nañu ko yàlla fayal radiyallahu anhu nee na boo nee ku baax la kenn du la jam ndax yonent day baax waliyu day baax malaaka day baax loolu atte la bu gàtt foofu pare naa ca parce que état rek moo mën a régler problème Kunkande ak problème mu Baye Cheikh kii lu dafa wax day xar géej gi kii nii day naan géej gi yemul foofu mën na dekkalal nit ñi seeni maam man de sama maam bu doon sama sogo naa ko gis bu ma mënee dimbali ba dekkalaatal ma ko ba ma tiim ko gis ko dinaa ko sant lool te yaakaar naa mbàcc bëgg nga sama maam ñu dekkalal la ko waaw yooyu yëpp sax day gudd yow da ngay sëriñ ñu ci bare bari sëriñu féticheurs yi ñu ci bari seen doom yi ñu am duñu ko rek xam lool déedéet fétiche boo koy def du ànd ak nga correct am na ñoo xam ne mënuñu sax am doom seex yi ñuy def nii. dara baaxu ci dafa xaraam amul xam-xam bu yàlla mayewul nag mais ñoom yi ñu ciy wax yëpp dañuy waxuñu dëgg yi ñu ciy wax dara du ci dëgg waaye nag bàcc pare naa ci dossier nii ndax ñii du duñu tardé bëgg maa tardeel man l'essentiel daal maa ngi ni tekk di déglu rek gawuma ci tous nag te naa ci bari moroom ndax xam naa ni mënuñu sax dekkal melentaan waaye nag bàcc réew mi yënguna réew mi yëngu na réew mi yëngooti na de jigéen ñu baax ñi ana jigéen ñu baax ñi fu ngeen ne ah innal muslimiina wal muslimaat loolu yàlla waxoon de wal muuminiina rek wal muuminaat waaye wal xaanitiina tam wal xaanitaat de yàlla nee na foo gis jullit bu góor bu baax neena am na jullit bu jigéen bu baax bu ne ci wetam waaye nag ma wax la leen bàcc am na jigéen ñu soxor am na jigéen ñu soxor am na jigéen ñu bon am na jigéen ñu iñaan mbokk yi xool leen li ngeen gis ban fit la jigéen war a am ak lan moo ko war a jaral nga jàpp sa awra boroom kër dagg teg na la ci taabal ji jigéen defati na lu rëy dama ni jigéen defati na lu rëy xanaa góor soo demee ba bëggatoo ko soo demee ba bëggatoo ko doyal nga ci moom mais woo ko ba mu ñëw nga waxtaan ak moom ni ko doyal naa ci yow waaye jëf ju ñaaw jile jàpp sa awra borom kër jël paaka nax ko naxa nax ba mu neex la nga ni tàppit awra ba mbokk yi jan senegal lañu ne jan dëkk la ñu ne ndax lii rafet na man li ma jaaxal nag bàcc mooy pourquoi jigéen soxor lan moo tax jigéen soxor ñoo xam ne dañu soxor waaye day royuñu Mariam de yaa yaay yunt yàlla Isa doy na sëkk ci référence waaye day royuñu royuñu Aïchatu doy na référence Sénégal dem leen jàng histoire Xadijatu bintu Xuwaylid doy na référence waaye sori na dem leen seeti maam jaaro buso rek ñu ci poroxaan jigéen ju tooy tedd jooju dem leen seeti maam faa wadd wele mii ci gaaya jigéen ju tedd tedd jooju yàlla nee na albaladu tayib yaxruju nabatuhu bi idni rabbi waaye walladi xabusa laa yaxruju ilaa nakida yàlla nee na àll bu teey àll bu set àll bu baax loo ci jiw jiw wa day baax waaye fekk fekk àll wu bon nga jiw ci sa jiw yaa yàq sa jiw un bon pays sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur waaye ne yàlla ne na quant au mauvais pays sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement méchanceté boobu baaxul man dama mënul xam rek jigéen ban lan moo ko war a mu ak sa jëkkër lu mu la mën a def na doxaan sa xarit sa jëkkër na takkal wujju sa jëkkër na la def bépp xeetu mbonte mënoo muñ woo ko ba mu ñëw charia may na la nga def lu ñuy wax summeeku ngeen tàqalikoo ci jàmm mais jigéen li mu mën a def góor dafa bari loolu dinañ ci jël dinañ ci def débat waaye jël sa lañset walla sa paaka téye ko guddi jot nga fay làmp di naxtaan ak moom di naxtaan ak moom ba dagg awraam mbokk yi nañu delloosiwaat xel yi jigéen ñi si leen seen xel yi ngeen ànd ak seen sago te xam ni àdduna day jeex boo nee soode ñu ni jigéen soode ñu ni jigéen jël paaka jam ñu ni jigéen bu fukki bu jigéen ne def fukk lu bon ci loolu góor benn la cay def wala ñaar kon nag mbokk yi tey lii rek moo nekkoon débat bi ak yéen ñu ñëwoon rek ak yéen àndoon ak yéen lii yàlla yàlla def tawfiix yàlla defal ñu taysiir defal leen ko ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu dox daje ba beneen yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.